Euh, CNG ak arbitre yi ñu bëgg fas yéene waxtaan ak moom ci làmb lu baree bari ba pare mu bëgg nekk ci li nga xamante ni ci bopp ba Alioune Sarr na dem wala du dem dina ko dina dina ko remplacer wala du ko remplacer muy Kéba tey moom lañu euh, dalal fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam te moom mooy làmb ak li nga xam ne instant bi moom mooy actualité bi ak feebar bi nga xam ne instant bi moom moo lëmbe jamono ndax nee naa leen ba léegi day sensibiliser ndax euh, képp koo xamante nii rek euh, nee naa leen da nga nekk ci réew mi nekk porteur de voix dañ lay seeti moom nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga ne moom mooy làmb rek rek rek ak ci li nga xamante ni moom la bëgg a dugg muy ci wàllu CNG li mu bëgg a nekk président da koy wut wala du ko wut daal Basirou dañ ci xam dara ñu xool ay proposition ba xam compétent compétent na wala compétent wul loolu yëpp incha allah dañ waxtaan ak ci moom. Kéba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, di nuyu waa Wasaare di nuyu waa àdduna ñi nga xamante ni tamit ñoo ngi seetaan si sa site bi di nuyu tey ji sa caméraman bi nga àndal di nuyu aussi ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci àdduna bi di leen mastaw feebar bi leen dal. di ñaan yàlla yàlla sàng ñu sutura ba Sénégal ñi mu fi jot dal mu ñu wér te mu yem fi di ñaan aussi euh, population bi couvre-feu bi ñu bi président décrété ñu respecté ko ak euh, lépp li nga xamante ni matuwaay yi ñu leen ñaan pour ñu jël ko pour feebar bi bañ leen a dal ñu topp ko aussi te di ñaan yàlla kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñëpp def ay ñaan pour yàlla sàng ñu sutura sàng sutura àdduna bi yëpp. li ci gouvernement bi wax ak gouvernement yëpp. mooy jël seeni mesures tey jii euh, xam nga tey feebar suñ demee ba ni su nuyoo nit ki mu wàlle wala respecté woo distance yaakaar naa ne jël matuwaay rek ak toog sa kër moom moo moom moo ci moom moo ci saafara leneen li si topp aussi nit ñi ñoo ngi gëstu di xool lan moo ko mën a arrêté damay ñaan àdduna bi yëpp ñu booloo seen doole xool li nga xamante ni mën na saafara lii ñu saafara ko et je pense que nii autorités yi jël nañu ay mesures ñoo ngi leen di ñaanaat rek ñu gën a jàppale population bi ci transport parce que tey am na ñuy wàcc bëgg ñibbi te day doon problème ci ñoom donc wàññi nañ tey euh, nombre de passagers yi nekk ci transport yi mais nañ jéem a xool ak euh, service yi nga xamante ni état moo ko yor lu mel ne Dakar Dem Dikk ñu gën leen a mettre à la disposition euh, des des usagers ñu ñu mën di wàcc di ñibbi. nit ku nekk rek suñu xoolee cosaanam la muy def warut a nit ñi. ndax man ku xam suma way jur bu góor di ko nuyu o passage xam ne séeréer la waa Fatick la et waa kër May Soali Joon la te May Soali Joon ku ko xam xam ni moom moo njëkk a bokk na si ñi njëkk a tëgg làmb bokk pour bañ a wax moom moo njëkk a tëgg làmb si euh, diwaanu Siin donc loolu nag tax na ba loolu dafa feeñ si man man tey euh, su ma bëggee làmb maa ngi koy sante di ko gërëmee Moustapha Guèye parce que bi ma nekkee xale dama naan làqatu dem di jënd ay kasetam di ko ñëw di ko seetaan donc loolu nag moom moo dem ba def amour ci man ma bëgg làmb di ko suivre ba mujj gi may suivre Tyson nekk supporter am xam nga du yàlla nag noonu la def di def di def di def ba euh, ma xamanteeg monde làmb bu bëri di dem di seetaani làmb ba dem ba daal dugal ci sama loxo. Euh, Fatick dama fa doon liggéey liggéey moom ma fa yóbbu woon bi ma demee nag comme que man chaque euh, soir dama doon dem géej di entraîner. ma remarqué ni foofu bon parce que y Maam Koor min yaad bëri na ay mbër yu fa nekkoon ya nga xamante ni euh, dañ doon ñëw di bëri si si tefes bi donc looloo waraloon nag ñu dem ba benn moment benn écurie moo fa nekkoon te Dakar la ne ma créé fa école de lutte tudde ko Mbin Fapes muy signifié en séeréer euh, Kër Baay donc ma wax ne làmb dafa dellu Kër Baayam ñu ne si la ñuy dem di dem di dem di dem ba région bi bon mën naa ne région bi yëpp adhéré si mu bëri ay champion yàlla def Jokal moo ci génn bi mu génnee après bon euh, mu doon entraîné Fatick combat yu bëri Fatick la ko préparé ba yàlla def nag mu ñëw dakaar bi mu ñëwee dakaar ñu yóbbu ko école de lutte ñu tegaat ma fa ba un moment école de lutte saa éclaté ñoom nangu dem maa ngi leen nuyu au passage ak ñoom euh, gaynde waaloo gars yu bëri dem ber seen langue continuer ak saa ñàmbur euh, entraîneur bi ak yeneen staff bi créé. sa euh, écurie euh, Boy Gandiol après nag man si la quitté continuer nag di encadrer jokel waaw ba un moment ma jël ko bàyyi ko Kër Massar mu dem ak waa écurie Kër Massar man ma continuer suma activité. waaw mais loolu loolu du ñàkk àdduna ku nekk rek am na koy jàppale te euh, Jokal yàgg naa ci staffu làmb avant Jokal nit ñi zos nañ ma xamee won donc après zos am na yeneen bëri yoo xamante ni bari nañ ay combat yoo xamante ni dugal naa sama loxo bokk naa ci ñi leen encadré donc euh, pour bañu lim tur rek waaw mais euh, après Zos Hôtel Dior bokk naa ci ñu ko yóbbu ci ay combat yu bëri après Hôtel Dior nag euh, si lañ encadré Jokal ba Jokal àgg fi mu war a àgg ñu bàyyi ko moog waa Kër Masar di continuer non dirigé wu ma benn écurie yoreetuma benn mbër. xam nga tey su fekkee ne danga nekk nit ka nga xamante ni yàlla def la nattoo ngay xaritu ñëpp. am na la nga xamante ni soo ko bëggee jouer rek euh, dootul nekkati lu baax parce que tey jii da ngay gis ñaari mbër yu mag yu war a bëre te ñoom ñaar ñëpp sumay xarit nañu doon donc kii dafiy ñëw tey kii ñëw fi suba te finalement après loolu dafay xaw niru naa feq donc je préfère nag euh, bañ sa yoreti kenn képp ki nga xamante ni làmb boole na maag yow wala leneen boole maag yow soo si amee bés ñu jàpp si ñu si war a jàppee et képp ku nga xamante ni tamitam dañ ko ciy faral ñu faral suñu biir xol te noppi li ma wax léegi xam nga Malick moom man làmb boole maag moom. parce que Malick ba may ànd ak moom daanaka fekk presque bëreetul donc Malick sama frère la nit ku baax la yàlla moo defoon euh, ñu amoon leneen lu ñu seq lu dul làmb donc loolu waroon na tax nag ba lépp li nga xamante ni man dama ciy yëngu mu di ma ci jàppale kon su yëngu dara dama koy jàppale bi ñu demee nag ba benn moment mu bëri li nga xamante ni tey euh, ay adversaires yi nga xamante ni war na bëri ñoom yaa ngi dégg te man itam ma nekk nit ka nga xamante ni ñi mu war a bëreel waruma ko yàqal ma préféré retiré wu. waaw mais du du du du du leneen Malick suma frère la suma xarit la suma dëkkandoo la. àdd moo mel noonu tey da ngay gis euh, comme par exemple président de la république ñëpp lay xamante mais euh, du tey aussi li mu war a def da koy def leneen li si topp aussi mooy ñun tey yaakaar naa ni am nañ maturité bu ñu may ci làmb suñu faralee nit sax nit ñi duñ ko xam ndax tey làmb moo toll foofu ci àddina et ténor yi ñoom ñëpp suma yaay xarit nañ ñoom ñëpp. ku ci nekk rek maag yow seq nañ lu rafet donc du ma ne xarit parce que xarit mooy ñi nga àndal chaque jour mais seq nañ lu rafet seq nañ lu rafet la nga xamante ni ñoom ñëpp i jàmm laa leen yéene. xam nga Saloum donc euh, moom euh, dafa nekk champion ba nga xamante ni tey mën nañ ni c'est un incompris ñu bëri dañ ko jël marginaliser ko te yàlla xam na ni champion bu mag la te moom itam ñoo bokkoon salle bi ñu entraîné. donc euh, ba tax na danaan ñëw ñu koy conseillé te itam seq ak moom la nga xamante ni lu rafet la seq ko ak ay waa këram loolu moom moo ñu boole maag moom. làmb démb amateur moo daan ñëw fees fa dell donc supporters yi sax ay amateur lañ doon doon làmb tey nag supporters yi ñoom ñoo dominé eh, waaw ñoo dominé waaw. waaw xam nga loolu aussi euh, tey tëggatuñu mbër si yu bëri bokk tëggatuñu mbër. ndax mën-mënam dañuy tëgg mbër ndax mbooloom moo tax mbër yi dañuy obligé euh, di wuti supporter comme di wuti ay fans club yu dul jeex mooy ñu baax mooy ñu bon mooy ñu të mooy ñu tërë di ñëpp ñu dajale leen pour mën a feesal seen seen seen stade. mais xam nga loolu c'était prévisible parce que tey jii xam nga su fekkee ne dañoo nekk ci benn euh, domaine. ñu dem ba benn moment jàpp ne li ñu leen li ñu leen dénk ñoom ñoo ko moom. et ñi si des aussi ñu bëri dañ see dugg pour lijjantiku wala dégg rek dugg ci moo tax foog mu am ay problème parce que tey bu njëkk promoteurs yi bëri ñu woon mais làmb doxoon na quand même donc léegi nag promoteurs yi bëri nañ mais làmb doxul ndax li ko waral tey euh, matuwaay yi nit ñi war a am pour doon promoteur amatuñ ko tey ji promoteur da nga doon ñëw am fond boo tëggee làmb ñëw taxawal say combat dem wuti sponsor mais léegi promoteur yu bëree bari bari bari bari bari bari bari ñu si bari si ay billets nañu wéeru sponsoring moom proposition la rek tey jii da ngay xool nit ka nga xamante ni euh, am nga confiance ci moom produit bi ngay jaay bëgg ñu xam ko ñu dénk ko ñu defal ko sponsoring. Kéba ñu gis ne instant bi promoteur yi pour sponsor sax ñu tëgg combat day xaw a metti ndax euh, ma kiiwaale ko ma jàllale tuuti ndax gis nañ sax VIP yu bari ren. combat bu neex amul malgré am na li nga xamante ni am na fi muy feebar bi mais dañ daan gis ay Balla Gaye 2 Modou Lo Ama Baldé combat bu mu amatul ñu gis ni pour nga am sax affiche yu mag ndax maa ngi na euh, benn euh, pergason ñu koy nuyuwaale au passage mu koy wax ay janvier kii combat yu mag danaan am ay décembre léegi amatul lu waral loolu yow. waaw xam nga euh, affaire sponsor moom jàpp naa ni produit la rek. ku am sa produit xool fi nga koy jaayee xool cible bi nga am jaarale ko ci làmb wala jaarale ko ci leneen mm-hmm. faire sponsoring moom proposition la rek ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo yore seen produit ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo yore seen ay affiche mm-hmm. yaakaar naa ni peut-être dañoo bokk bokkatul vision wala bokkatul li ñu bëgg mm-hmm. mais jàpp naa ni lépp loo gis si àdduna innovation daf si baax. Mm-hmm. et am na ay innovation ya nga xamante ni tey suñ ko indi woon peut-être que làmb sponsor yi danañ dellu si waat. comme yan comme yan bëri na bëri na. ah non mais comme que ñun dañuy dafa am lu ñuy xëcc fi mu toll nii moom. Ah. duñ ko mën a wax mais bëri na. te leneen li si topp mooy xam nga tey dama la jox exemple rek xam nga tey benn moment. Mm-hmm. da nga xëy suba teel VIP yi. Gaston jël leen maa ngi koy nuyu au passage sama père xulookat bi moom <laughs> sama papa la ñoo bokk dëkk Louga ah ah. waaw ñoo bokk dëkk Louga xam nga tey mm-hmm. euh, VIP yi mm-hmm. euh, dañoo toll benn période Gaston indi calaf mm-hmm. sponsor yu bëri ñëwu wuyu si ko ba ba ba sponsorisé waa sax arbitre yi. voilà ah mooy mooy lima la wax rek. mooy innovation la indi woon. kon donc nit ñi nañ xoolaat lan moo mën a dekkilaat laa mu ñu def ko. waaw loolu rek moo mën a indiwaat sponsor yi du leneen. dafa mel ni eh, Kéba pare na pour indi yooyu yëpp mais tey la mbër yi mbër yi bëriwul làmb ak fi mu toll ñu gis mbër yu mag yëpp bëriwuñu lu waral loolu. waaw xam nga tey promoteur yu bëri dañoo retiré wu te promoteur yi fi nekk man tey seen euh, association bi. Mhm. maa ngi nuyu président Abdou Fall. ñaara fi nekk de. association ñaar ñëpp association la. si <laughs> <laughs> ñoom ñaar ñëpp sama yaay xarit lañu. Ah. waaw yaa ngi suñu booloo woon seen doole comme ni ñu koy defee. mën nañ tëgg ay affiche yu mag. ñoom promoteur yi ah nañ tëgg ay mhm. ah, parce que tey euh, ñoo ngi bëriloo xale yi c'est c'est c'est vrai. Mhm. mais tey aussi il faut ñu xool làmb li koy xaw a rey tuuti. parce que ñu bëri dañ si nekk te làmb amul lu leen njëriñ. ñu bëri ñu bëri bari bëri bëri. te loolu yàgg na ci àdduna sax. Mhm. ñun ñii di politique sax da ngay gis ñaa xamante ni mille hommes politiques dix ñoo si réussir. ci politique loolu yàgg na ci àdduna mais tam quand même. du tee ku ci nekk rek nga xool euh, li nga xamante ni yaakaar nga ni. suñ ko defee dina woon a dekkil si li ngeen nekk. ñoom ñu booloo def ko. c'est juste ça tey jii Pa Abdou Fall euh, Fallou Ndiaye Assane Ndiaye euh, ñoom Dieye ñoom Abdoulahat ñoom ñëpp suñ dajale woon. ku ci nekk rek nga yore say journée waaye aussi ngeen booloo tëgg benn journée bu mag. loolu aussi mën na dekki làmb parce que ñoom ñëpp ku ci nekk rek am nga sa benn sponsor. loolu tamit xel la beneen bi tamit gis nañu problème roi des arènes suñu papa Alioune Sarr mi ngi ci doon wax ñu bari ne <laughs> depuis euh, suñu papa Manga ba mu jëlee roi des arènes ba léegi fi roi ay roi kulo kulo rek moo fi nekk yow nan nga gisee euh, affaire roi des arènes. non kan ma wax mu roi kulo kulo. ah man maa ko waxee noonu Basirou parce que comme que nee <laughs> Eh, Modou Lo ñu koy nuyu au passage doo roi kulo kulo mais waxin la quoi ndax euh, bu fekkee dañoo dàq ni mm. na roi des arènes depuis suñu papa manga ba léegi. waaw reconnaître ñu roi des arènes kon donc ñu fi nekk dañoo bëgg a ay roi kulo kulo lañ Basiru. loolu si gàttal li ma la si leeral. Mm-hmm. président Alioune Sarr. Mm-hmm. li mu wax noonu moom wax dëgg neex yàlla. Mm-hmm. man d'accord ma ci benn ñaareel bi mooy xam nga tey. Senghor bi mu démissionné. Abdou Diouf moo ko remplacé. moom moo fi nekk président ba demaat élection gañewaat buur su ko buur gañee mhm. rey ko mhm. mooy buur mhm. loolu rek Modou Lo c'est des arènes nañ ko ko nangul c'est l'actuel roi mu neex Alioune mu naqari ko mu gëm ko mu ñàkk ko gëm c'est le roi yow tey est-ce que tey amoo ay proposition yoo xamante ni tey bëgg nga ko comme roi des arènes ndax ñu bari ñu ngi naan gars yi pourquoi du duñu tëgg benn kii boo xam te ne ay Balla Gaye yi ay Modou Lo def benn kii boo xam te ne ndax wàllu roi des arènes ñu féete ko à côté ndax depuis moom Balla Gaye sax même bu mu nekk roi des arènes amoon na ay problème ndax chaque jour day poser problème yooyu noonu. xam nga loolu mënut ñàkk da ngay gis sax mbër. Mhm. roi des arènes am mu ne du sama roi. loolu mënut a mënut a mënut a ñàkk mais promoteur yiy jël seen xaalis. dem tëgg combat. yóbbu seen i reliquat CNG ne combat royal. CNG waxul ba ñu bëree indi seen euh, seen couronne. indi seen chaise. ñu daan ñu ne c'est le roi des arènes soral ko ko CNG waxul. ñu bàyyi ba nit ki dem toog jàpp ñaamuram ñu naan du roi ah mais loolu aussi xam nga tey proposition loolu moom ñëpp am nañ ko. yaa nga xamante ni war nañ ko mën a def man tey. su yàlla defoon. xaw ma nag ba xam luy am lay doon. ñu organiser élection ñoom ñu ñeme. waa CNG. waaw ñoom ñoom ñoom ñu ñeme. Mhm. ñu dem élection. Mhm. ma leen. <laughs> mais nag kii wóolu na boppam de. yóbbu leen retraite ñoom ñëpp. Ah, ko yóbbu retraite. ñoom ñëpp dañoo sonn ñoom ñëpp ñoom ñëpp kay. ah lu fee wut. ñoom Père Thierno ñoom Alioune Sarr. mais dañoo fatigué. ñëpp. ñaata at nañ def CNG bi dañoo fatigué. Mhm. dañoo sonn. am na am na CNG ñaa xam ne gisatoo leen sax. waaw léegi boo doon yóbboo retraite nag. après après ñu defaraat làmb ji nag wax dëgg. ba ci roi des arènes bi ah oui. ok di nga benn système boo ah koy ah mais parce que xam nga tey sax et li ñuy wooyee roi nga nekk roi tey titre bi la rek. ok appellation la ñu ne diw mooy roi. mais roi làmb daf ko war a defal dara. te yooyu yëpp moo ngi ci li nga xamante ni tey su fekkee ne. Mm-hmm. su fekkee ne ñoom ñeme nañoo dem élection. Mm-hmm. Euh, dinañ génne proposition yooyu jox ko amateurs yi. Mm-hmm. ak monde làmb ñu xool ba xam. tey jii loolu neex na leen. su yàlla defee ñu jël ko. ah dinañ ko def mais roi daal jàpp naa ni. làmb da ko war a amal njëriñ. waaw ah lan ngay tàggatoo. non bon maa ngi. nuyu ñi nga xamante ni aussi fekk nga leen fii. muy sama grand mayekoor. di nuyu waa jaxaw xam nga waa Fatick di nuyu waa Louga bi ma dëkk. di nuyu waa Touba waa Mbacke sama dëkk Jabar. di ko nuyu moom. moom neex a faral xam nga neex a faral lañ ko tuddee. <laughs> a di nuyu suma doom yi di nuyu suma yaay suma papa di nuyu waa adduna yëpp. di nuyu waa làmb surtout xam nga. di nuyuwaat encore une fois président Alioune Sarr Tyson Thierno Ka borom ñàngal yi ngi dóor rek day ñàngal <laughs> rek moom moom moom sama papa bu baax la dama koy mm-hmm. nuyu bu baax mm-hmm. xam nga di nuyu aussi képp ki nga xamante ni rek tey sa xol ak sa xalaat def nga ko ci biir làmb mm-hmm. nga ànd ak ñun suñu position ak nga ñàkk ànd ak ñun di féliciter aussi Gris Bordeaux da nga koy féliciter koy féliciter parce que tey lu xew ci làmb jug na ci dox ko moo ngi assumer son rôle waaw mm-hmm. ah, maa ngi koy félicité bu baax mm-hmm. waaw balaa may fàtte di nuyu Père Gaston <laughs> sa xarit yéen a ko fan quoi non bokk ñoo bokk ñoo bokk kii ñoo bokk dëkk Louga benn mm-hmm. ñaareel bi Père moom képp ka nga xamante ni am na yow problème. ñu may woo leen ko nag père. Eh, dalay dem enquête li muy njëkk a def mooy enquête la ba xam dara si yow <laughs> ñëw topp wax. moo taxit nangu woo nangu woo wax moom. moom waxut ci man. lu may wax ci moom yaa ngi koy de. non daw ma ko de. non père après naa jëlaat benn pour mu wax yow li nga bëgg a tàbb ci kii bi. non na wax <laughs> ah man su ma attaqué nag père <laughs> soo ma attaqué ma. yaa ngi daw père Gaston de. daw ma ko de moom sama père la moom. Ah. moom sama papa la sama xarit la. Mm. yaa ngi dégg mm. jàmm nañ seq ak salaam. Mm. bokk dëkk Louga. Ah, mais woo nga nekk ne ko da nga bëgg a ko nag waa dëgg na yàlla. doo ko woo. non père daal na <laughs> père mën nga ko woo fii mu wax la la nga xamante ni xam te ñun deretu xale ba nekk ñun. ah moom nag sama père la ah. ko dégg na wax dëgg neex yàlla. Mm-hmm. parce que temps yi ma yoree jokkal daanaa ko woo. Mm-hmm. wax dëgg neex yàlla mu tëgg ko. waaw nit ku baax la dafa bëri ay xëdër rek ak coow. Mm. xam nga mën a peinture moom moom su la peinturee dootoo jaarati fenn xam nga mais moom mën na laa peinture tey. Mm. suba tamit mu lasewaat la diluant la ba nga set. moom moom mm-hmm. suñu père la. Mm-hmm. moo tax ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp daal. Mm-hmm. di nuyu benn xarit Talla Sène xam nga Talla Pëna ñoo ñëpp ay nitu làmm nañ. xam nga di nuyu tamitam promoteur yëpp da A xam nga. di si nuyu ñi nga xamante ni tey jii ñoo ngi sonn si làmb di nuyu kenn nag ka nga xamante ni tey dañ ko waroon a décorer ci làmb muy Serigne Modou Niang. billaahi mi indi embouteillage kii ki toog mais xoolal fi muy génn. non dañu war a décorer ci làmb. ndax ñu war koo décorer ci làmb. champion boo fi dégg. Hmm. daanaka sëñ Modou la génne. ok mais sëñ Modou. waaw Kéba mi ngi de. père maa ngi lay nuy bu baax a baax moom sama papa la. Mhm. dëgg neex yàlla nit ku baax la. Mhm. nit ku sedd. Mhm. nit ku yiw. yaa ngi dégg nit ka nga ni wax dëgg neex yàlla doo ko dégg ci dara. léegi ñëppay dóor. waaw di ñaanal yàlla aussi Luc Nicolas. fi mu nekk. ay waay yàlla génne ko fa. di ñaan yàlla président Macky deux mille et quelques prisonniers yi mu gracié. deux mille trente six ah. waaw nañu si boolewaaleel Luc Nicolas mu bokkaale ci génn. ndeysaan ndeysaan xam nga di ñaan yàlla yàlla. aar ñu sàmm ñu musal ñu si coronavirus di profiter si occasion di jaale aussi waa kër Tilala Fall mhm. Cheikh Tilala mhm. di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd mhm. yàlla na ko yàlla yërëm yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe di jaale aussi suma benn xarit bu génn àdduna semaine bi ñu koy wax eh, Ibrahima Ba waaw di yàlla suuf yoof sedd ci kawam di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mm-hmm. di jox mention spéciale sama yaay mm-hmm. di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. neex a faral ak neex faral looy wasaare wasaare ah. non leen di wasaare rek <laughs> yéen moom yéen moom yéen a ngi wasaare xam nga Père Gaston euh, mu ne dëgg bu leen wasaare suñu làmb ji xam nga mais man wasaare bi ma jàpp moom ngeen yore moom ah. ngeen yaatal ngeen ah. yaatal làmb ji ah. waaw moom nag comprendre moom moom wasaare xam nga moom jeex daf ma sonal moo tax nee na nga wuti jëkkër <laughs> te nga bàyyi làmb te nga bàyyi mbër yi moom moom yaay sama garaat te xamul ne suñu kii yow da yaay ci da ngay sonn aussi moom itam xam nga kon kon moom nee na yow nga bàyyi làmb ah. dem wuti jëkkër <laughs> nee na looy wut ci làmb ji nekk ko moom itam ah. na dem retraite <laughs> te yaa may maye te ma maa lay maye te mayeegu ma jeex na kon merci beaucoup l' <laughs> euh, émission tire à ñu koy remercier waat bu baax a baax moom Kéba mu nekk frère boo xam ne ku baax la kon li may wax rek moom dalay topp di la conseiller defal nii defal nii di jàpp na di si jàpp bu baax a baax a baax a baax moom di ko ñaanal jàmma ah, moo xam ni mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed yàlla yokk ko ba mu yëg ko yàlla yokk teraanga yeeg yëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wax dëgg yàlla ku disponible la Messi maa ngi koy nuyuwaat bu baax a baax naan la yow jàmm si yow borom kii yu naay si borom image yu naay si li may wax kenn du wasaare di wax rek ah wasaare lamb wasaare TV nii la def di xool yi nga xamante ni moom ngeen bëgg ñu leen koy indil Keba Kanté lañ leen indil après nag dañuy dem xoolaat mbër wala ñu xool arbitre wala ñu xoolaat rek képp koo xamante ni bëgg ngeen ko kon li may wax rek Fatima Kese mais di bëggewaat bu baax a baax ah suñu waa ji ah ku a fii ñu ngi koy waaw ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax ak di di remercier ki nga corona <laughs> corona maa ngi koy bégee mooy bu baax a baax mooy ku baax la kon la ñu wax rek lu dul jàmm jàmm ko gën kon yàlla nañu yàlla may jàmm Basirou juuf yow nekk si jàmm rek ah di bëggewaat waat Touba waa Mbacke ñëpp ñu ngi leen di bëgg soo ma waxee Basirou xaw ma foo ñëw <laughs>